À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Baye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Amadou Bamba, Dakar. Téléphone 33 864 75 15. ngëneel digle lu baax di tere ab te da ngeen di yàlla wa tu'minuuna billaahi ci sart yi la bokk kon xayriya boobu balaa mën a am faw mu am ñu jóg waxoon naa ko ca sànq ne ba demee ci aaya yooyu ci Ali Imran suñ boroom wane na ci ne digle lu baax ak tere ab safaan farata la joo xam ne fardu kifaaya la ndax bi mu koy digle dafa ne waltakum minkum ummatun minkum ummatun yad'uuna ilal xayr na am ci yéen minkum la wax kon tabaxit na ñenn ci yéen jóg ñu bokk ci xeet wi jàng lañ war a jàng xam lañ war a xam yàlla jox leen lañ leen war a jox ci kattan basta fil ilm wal jism wal xikma na ñooñu nañu jóg di digle lu baax di tere ab safaan waaye bu ñépp toogee maase ci bañ koo def nag su boobaa la muy jur nag moom defe naa ne du doon lu gën du doon lu gën te loolu dana feeñ ci kanam kon aaya boobu wane na ne ngëneel gi xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am bokk na ci di leen ko may mooy day xeet wuy digle ak a tere du xeet wuy seetaan lu bon du xeet wuy gis lu baax loo xam ne su ko waxee ñu war koo def mu noppi ca waaye dafa war di wax waxtu wu nekk di digle ak a tere beneen ba ca des ci ñeenteel ñeenteelu am solo gi mooy ne nag gis nga digle lu baax ak tere ab safaan mooy garantie bi nga xam ne mooy tax aw xeet wala rawatina xeet wii en tout cas xeet sallallahu alayhi wasallam des fi nekk fi ba faw ba soob yàlla mooy taxit xeet wi di mucc ci mbëggalum yàlla loolu li ko firndeel mooy xadis bi al imam tirmisi mu wax ne sallallahu alayhi wa sallam nee na giñ naa ci yàlla mi nga xam ne sama bakkan mi ngi ci loxoom kon li muy giñ ñor na ko war ngeen di digle lu baax di tere ab safaan bu ngeen ko deful xanaa di seetaan yàlla dana xaw a dana xaw mooy tuuti kon rek yàlla yabal mbugalam mu wàcce ko ci seen kaw su boobaa ngeen di ko ñaan te du leen wuyu ngeen di ko woo te du leen wuyu loolu rag la mbugalum yàlla bokk na ci li tax mu wàcc ci xeet wi mooy toog bañ a digle lu baax bañ a tere ab safara beneen xadis a ngi nii boo xam ne ibnu bashir moo ko nett li jële ci sallallahu alayhi wa sallam mu ne e, dafa misaal misaal mu rafet mu leer ci ni ni nit ñi war a taxawee ci di digle lu baax ak di tere ab safara ak buñ ko deful la muy jur buñ se buñ toogee def kenn ku ne naan man man sama bopp doy na ma mu misaal ko mu ne ni nga xamee ne taxaw ci li yàlla santaane ci ay ndigalam ak yi mu rëdd ci kaw suuf ci sariyaam di ko saytu ak tabbi ci biir tere suñ borom yooyu ni mu mel misaal mi ni mu mel mu ne mi ngi mel ne nit ñoo xam ne aw xeet wala am mbooloo moo xam ne dañoo dugg ci dugg ci genn gaal benn bato bu mag gaal gi nag dafa am kërug kaw am kërug suuf ñi nga xam ne ñoo ne ci suuf saa bu ñu bëggee wut ndox dañuy yéeg dem ci kaw ba benn bis ñu ne ñun de li ñuy def ab coono la tee ñoo bënn ci suufu gaal gi bën bën boo xam ne ndox mi da ciy jaar di dikk ci biir gaal gi su ko defee du ñu demati ci kaw di wuti ndox foofu dootuñu daal maanaam lorati ñi nga xam ne ñoo ne ci kaw ndax li leen di dérange yonent sallallahu alayhi wasallam ne waaw waa gaal gi bu ñu toogee seetaan ñooñu ak loolu ñu bëgg ñu def lan mooy xew mu ne hëlëku jamian ñoom ñëppay alk ñëppay lab ndax bu ndox bi dugg ci gaal gi moom ci suuf lay tàmbalee ñoom ñi nga xam ne ñoo njëkk a def loola ñoom ñoo njëkk a laro waaye du leen du fa yem day romb ji ci suuf yéeg ba ci kaw moo tax mu ne bu ñu leen seetaaneeg lañ bëgg rek ñoom ñëpp alk waaye bu ñu leen teree nag téye ci seeni loxo najaw wa najaw jamian ahlu sufl wa ahlu ad ñoom ñëppay mucc ñi ci suuf dañuy mucc ñi ci kaw mucc imaam Buxaari muslim indi te loolu itam defe naa ne ku wet di laaj banu bokk na ci di yàlla alage alage woon seeni jamono al alkane ju rëy mooy dañ daan def ñu gisee kuy def lu baaxut ñu mën koo tere dañ cay noppi dañ cay duñ ko wax ba yàlla jéppi leen ca loola wàcce mbugal ci seen kaw kaanu laa yatanaahawna an munkarin faalu labisa ma kaanu yafaaluun alxuraan nee na lu bon lu ñaar loolu nga xam ne ñoom moom lañ doon def kon bokk yi solos digle lu baax ak tere ab safaan soloom lu rëy la mënees na koo firndeel it ci ne ndekete dafa bokk ci màndarga yi ñi gëm yàlla ñu góor ñi ak ñu jigéen suñu borom bi muy wax melo ñi gëm yàlla ñu góor ak ñu jigéen ci suratu tawba bokk na ci lëm leen melale mooy ne ñooña foo leen fekk dañuy digle lu baax ci seen biir di terente ab safaan ci seen biir wal muuminuuna wal muuminaatu baaduhumu awliyaau baad yaamuruuna bil maaruufi wa yanhawna anil munkar beneen ba ca des ci tënk rek mooy ne moo doon li gënoon a am solo moom digle lu baax ak tere lu bon moo doon li gënoon a am solo ci mission bi taxoon yonent yi ñëw ci kaw suuf yonent yi yàlla yónni ñu indi woon ay risaala la leen taxoon a jóg moo doon digle lu baax ak tere lu bon lu ñu daj ca lañ ca ca ci ci loolu lañ ko dajee da ngeen di bàyyi lii ngeen doon def ñu leen duñ ko bàyyi da ngeen di def lii ñu leen sant ñu duñ ko def ba tax ñu jël ngànnaay jaamaarloog seeni noonu te ñoom yonent yooyu biñ fi jógee itam ñi leen fi wuutu di al ulama al aamiluun wa duaatul muxlisuun ñooñu it ca ca loola rek lañ nekkoon al ulamaau waraxatul anbiyaa boroom xam-xam yi ñoo donn yonant yi te bokk na ci li ñu leen doon ne mooy digle ak ab safaan mu bokk nag ci ñooñu yi nga xam ne ñoo doon yonent yooyu doon yonent bi sallallahu alayhi wa mi nga xam ne ba ko sëriñ biy tagg ca muqaddamatul amdaax bokk na ci lam ko taggee huwa al aamiru naahi alladi al xayra yudminu huwa al aamiru nee na sallallahu alayhi wa mooy ki daan digle lu baax waaye mooy ki daan tere ab safaan itam nag te daan saxal aw yiw kon kuy digle it nag la ngay digle dañ caa war a jiitu li ngay tere dañ caa war a ngaa war a jiitu ca bàyyi ga digle gi danga war a jiitu ca jëf ja doon ci royukaay mooy tax ñi ngi koy digal ñu sawar ci jëfe roy la waaye di digle lu baax te du doo ko def duñ la gis nga di ko def tere ab safaan ba noppi di ko def loolu it sëriñ bi junj na ko ci bayit bi huwa al aamiru naahid latil xayra yudminu yudminu al te al xayra ci biir ak lépp luy xeetu lu baax ka tariqa lu mu ci mën a doon rek daawa la yoon yi moom daawa la tajdidiya islaahiya yoonu defar la yoonu yeesal noonu la ko Sëñ Tuubaa dégge moom noonu la ko jàngate dafa ñëw ngir yeesal dafa ñëw ngir defar wax na ko ci anam yu bare bare bare lil Mustafa wala bil Mustafa noo ko jàngi nawaytu maa yujaddidu sunnatahu lgarra wa inni ahmadu ujaddidu shariata almutahara insha walxaqiqata almunawara kon mujaddid la woon waaye muslix la woon kon li mu woote daawa la daawa la tey daawa boo ko waxee rek was wasaa'ilu daawa jumtukaay yi wootekat yi di jëfandikoo ngir tasaare woote bi lislaam dara jiituwu ci digle ak tere moo ci jiitu kon dundam gépp ci loolu la ko jeexaloon mësta noppalu fu mu mës nekk mi ngi bind di wane lu baax ko joxañ nit ñi di leen ca jëme daawul yam sax ci digle gi rek waaye ku ne xam ne ne bi mu taxawalee yoon wi itam da da doon dafa dafa dafa liggéey liggéey bu rëy ci fexe ba lu baax loolu yi mu leen di woo jëme leen ci mu fexe ba jëmbat ko ci ñoom def ko ci seeni jëmm ak seeni xol safaan ba it mu fexe ba ñu sori ko ba seexlu ko boo dem mag ñi àndoon ak moom ñépp koo ci gis lu baax mooy màndargaam mooy diineem mooy day danoom mooy siimaam al ilmu siimatuhum wal xelmu daydanuhum duna daawi wa inkaaril maqaamati kon danañu jéem rek indi ay misaal ci tukki bi nag ndax loolu moo doon xëy na bul mawduu bi dëgg-dëgg ni sëriñ bi wane digla lu baax ak tereb safaan ci alxayb al baxri al mubaarak dañ tudd rek defe naa loo xam ne dana toll ci xëy na ñeenti misaal rek jéem a xool bind yi ñu ci mën a jànge euh, li ci jiitu mooy bi muy dem bi muy dem rek dafa am lu mu bàyyee murid yi bu demee ci majmuwa yi bokk yi baax yi mujjee génne moo xam rawdu rayahin wala rabita xadimiya andi nañ ci ndénkaani boo xam ne bu yaatu la bu masaka bu mataka saara la ndax lépp lu sëriñ bi bëggoon murid yi ak jullit ñi nekk ca ginnaaw buñ ko gisatul mooy bi muy dem ci géej da koo def ci ndénkaane boobu mu ngi ci diwaanu sulpul jawaaxir am na ci mañ moo bi itam nga xam ne wane na ci lépp loo xam ne lu yàlla bëgg la ci lu ñu war a def ci diggante farata ak sunna ak naafila ak lu mën a doon ci lu baax lu dagan lu ñu sopp lépp andi na ko ci biir wasiya boobu yi lépp lu ñu war a sore it ci jikko ju ñaaw ak moy yàlla ak po ak caaxaan ak yu xeet ak yooyu yëpp wane na ko it ne loola dañ ko war a moytu mu bàyyee leen nag dénkaan boobu nag daal di del daal di nekk sóobu ci tukki bi nag waaye li muy nekk nekk ci biir noon yi xoolal mag mag moo xam ne da nga koo génn cim réewam génne ko ci njabootam génne ko ci biiri taalibeem bi muy dem waxoo ko ne ko xanaa loolu mooy li gënoon a néew ci ñu xamal ko ne ko béréb sàngam nga jëm walla béréb sàngam lañ la jëme loolu mooy li gënoon a néew waaye ñu fexe ba nëbb ko loolu lépp ngir woyofal mbiram waaye yàlla moom woyofalul mbiram nga xam ne nee na bi ma ñëwee ba agsi Conakry gi nga xam ne fi laay njëkk a joxe misaal ci li mu njëkk a fi mu njëkk a digle lu baax googu ak tereb safaan boobu bi mu ñëwee ba Conakry googu ñu escale fa am ñu ko fa fekk siyaare ko am ci kenn koo xam ne mbokkum jullit la di ab saalum saalum ñëw nuyu ko yëkkati hadiyaam jox bi mu ko joxe hadiya ji da ko ne man de damaa dégg ne da fee war a jaar jëm Gabon sëriñ bi nee na sëriñ bi laa am na ko ci irwaa nee na nee na ci laa xame ne Gabon lañ ma jëmee ci laa dégg yi turu Gabon xam ngeen ne loolu métti na ndax mënoon nañ ko ko waxe ca Ndar wala ñu waxe ko ko ci Ndakaaru mu ba waaye moom loolu ñëru ko woon naa ko barki dem ci benn waxtaan ma ne moom tukki bi ab dox bu boo xam ne doxu baatin la ko jàppe boo xam ne ni mu ko waxee ci asiru rek bihi sirtu min rabbi li rabbi muwahida wa hawli nasara wal buxooru tamoo ak lu ko tubaab yi wër-wër ak luñ ko xeex-xeex ak luñ ko fexeel-fexeel ak luñ ko mën a yéene lu ñaaw moom jàppul ne ci ci ni muy jàngate moom dox bi jàppewu ko tukki boo xam ne da ngay jóge min makaan fulani ila makaan fulani ci misaal nga ne man damay jóge ndak eh, ndar jaar ndakaaru dem gabon moom jàppewu ko noonu moo tax amul woon soxla amul woon yitte ci fan laa jëm ak fan lañ ma jëme ñaareel ba it mooy génn googu rek la bëggoon la ne woon siiw sëñ Fall wax na ko ci baat bi muy nettalee tukki bi ak wàccaay dem rek la ne woon siiw te dem gi mënul am sabab lu dul yàlla gase ko ak noonu jamonoom kon moom loolu jaaxal ko posé wu ko problème waaye nag kuy jàngat ci koo xam ne dañ laa tooñ mag mu toll ne moom ñu génne ko ci biirum réewam génne ko ci njabootam ak lu mën a xew waroon nañ koo mën a informer ne ko yaa ngi jëm béréb sàngam dëkk sàngam lañ la jëmee mu xam loola waaye nee na ci saalum saalum bii laa xame ne gabog laa jëm ci laa dégg turu gabog waaye foofu lu ñu fi yitteel rek mooy li muy nekk nekk ci xat-xat yooyu teewul ma ngay bàyyi xel mission la ko tax a jóg te mooy digle ak tere bi ko saalum saalum bi nee dama damaa dégg na yaa ngi fiy jaar jëm gabam yëkkati addiyaam jox ko mënoon naa jël addiya ji téye def ci jibaam dem ñaanal ko mu dem te kon mu doy ko sëkk waaye dafa daal di jëfandikoo fi saasa li ko war digganteem ak moom te mooy delloo ko ci yàlla te mooy digal ko lu baax te mooy tere ko ab safara foofu nag mu jàngale fi kuy digle lu baax ak kuy tere ab safaan lañ ca gën a war a jiital te mooy fexe ba pas-pas bu wér bu sel sax ci xel ak ci xoli doomu aadama yi rawatina julli ñi rawatina ndaw ndax la mu ko dénk mooy baatu laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah nga xam ne moo jiitu ci lépp mooy gën ji lu ñuy wax ci làmmiñ moom la ko wax ne ko li ma lay dénk weesuwul ñaari baat yooyu wax ko maanaama itam boo demee ci téere bi gisa u shakur laatu fi jaab abdul latif wax na ko nee na ma leeral ko it nag li li ma ci jublu ne ko laa ilaha illa allah dama laa bëgg a xamal ne yàlla mooy buur bi nga xam ne moo mat a jaamu jaamu gi di jur njariñ ñàkk gee jaamu di jur lor daal di ko ne nag yàlla moom yi soo ko jaamuwut di jaamu leneen wala keneen bis a ngi ñëw nga xam ne yàlla rekk mat a jaamu bis booy sukuraat ba sa ruu di yéeg tàmbalee ci say tànk jëm ci sa sa sa sa baat sa bëli bu agsee foofu fii leneen loo doon jaamu wala keneen koo doon jaamu keroog da xam ne yàlla rek mat a jaamu suñu blaat misaal na ko nee na ñaar bu ñu àndee kii di jaamu yàlla kii di jaamu leneen lu dul yàlla wala keneen ku dul yàlla nee na yow miy jaamu yàlla xaar ko fi yàlla rek bu fa jóg mukk bis a ngi ñëw moom mi doon jaamu lu dul yàlla wala ku dul yàlla dana am lu soxla fi yàlla loo xam ne mënu koo ñàkk su boobaa dana ànd ak lam doon jaamu wala kam doon jaamu ñëw fi yàlla fekk la fa yow yow mu nekk ci ron yàlla kon ku ne ci ron yàlla sax te bu la fa dara jël sëñ Tuubaa nag naka jekk ci ron yàlla la ma sa nekk moo tax ku muy mas a dénkit ku muy digalit ci yàlla rek la lay delloo tax saalum saalum boobu da ko ne laa ilaha illa allah loolu rek lay teg kon wéetalal yàlla jaamul yàlla muhammadun rasulullahi nag mu ne ko mooy yàlla moom mii nag boo koy jaamu bul ko jaamoo ci nu mu la neex ak nu mu la juboo ak nu mu neex nu mu noo ko jàpp ci sa xel waaye na nga ko jaamoo ci topp sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ko ne boo dee jaamu yàlla te jaamoo ko ci sunna lam la waxoon fee rek jant a ngi fenk ci sa kanam su boobaa da nga xam ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la yàlla yónni ci jàmm kon kooku leeralal na ko loolu moo tax sëñ Mate Lamine nee na. bi muy nettali xis euh, euh, xew-xew yi ba agsi foofu dafa jëfandikoo baatub hadiya ba noppi laaf ko ci boppam hadiyati la wax hadiyati safat la daa kunaakiri wax na barra anillaahu la daa kunaakiri min kulli jaalibin ilal manaakiri mu ne hadiya boobu mu wax du hadiya ji ko saalum saalum bi jox jubluwu ci loolu waaye hadiya ji mu jox saalum saalum bi moom suñ te mooy lan mooy xamal gi mu ko xamal